Euh, Moussa Kombo front administrateur du front patriotique bokk xalaat Thiès Nord tey euh, dañuy def réunion pour expliquer les points du référendum aux populations de Thiès Nord réunion bi def nañ ko euh, expliquer nañu point yi population yi comprendre nañu pour me rappeler nag leen ni ñan ñooy front patriotique front patriotique moo di les anciens conseils municipaux nga xam ñoo nekkoon réew ñoo bàyyi ñoom ñoo bàyyi parce que dañu leen trahiroon ci élection municipale yi ñu bàyyi former front patriotique di liggéey ak pouvoir bi ak le président Macky Sall euh, anciens conseils municipaux ak les notables yi nga xam ñoo nekk fii ci Thiès Nord particulièrement ak Ngent ñoom ñoo ànd former front patriotique léegi nag tey dañoo def réunion pour les référendum expliqué ñu comme il le faut aux populations te comprendre ñoom ñëpp nañu ils vont voter oui ñoom ñëpp hommes et femmes ils vont voter donc loolu lu jàll la wax nañ leen itam ne leen euh, boo leen gisee problème yi am ci mandat sept ans mandat cinq ans ainsi de suite yooyu yëpp le PDS ak président Abdoulaye Wade ñoo ko fi indi ñoo créé situation boobu parce que Wade dañ ko éliroon ci sept ans mu ñëw toog ni daf koy def juróom cinq ans mu def ko cinq ans mu toogaat defar ko sept ans yooyu yëpp jaxas jaxas yooyu yëpp moo ko fi indi su doon fekkoon noonu bàyyi woon na ko à sept ans kon tey xëy na du ñu egg si problème yu mel nii loolu daa amoon laa mën la may wax donc expliquer pour nit ñi mën a comprendre donc waa Thiès Nord yi ñu ngeen leen woo yéen ñëpp ngeen dem ngeen wuti ji wii le 20 mars. nee léegi dafa bëgg a defaat ans ngeen voté noonu yéen ngi gën may opposition parce que après li fi nekkoon moo fi nekkaat constitution bi li tax mu nekk pour jalgati yi fi amoon ak njublan gi fi amoon ak naafiq gi fi amoon ak maamoon gi fi amoon mu deñ moo tax constitution bi taxaw imaginaire àll bi nii léegi bu ko bëggoon a def léegi usine dañuy fay constitution faaw ngeen lire ko attentivement ñi ko déggul ngeen tekki leen ko ñu xam lan la wax bu ñëwoon zagu ngent bi tey ni dañ ci def usine mais waa ngent gi yëpp ñu dañuy fay dañuy dédommagé dañ ciy am suñu xaalis dañ ciy am bala ñu fee samp dara dañ naan population bi dëkk foofu nangam ak nangam lañ leen war a fay parce que foofu moo ko moom loolu constitution bi daf koy wax bala nga mën a kaas say droit dangay xam say devoir constitution bi daf koo wax lii man dañ ma koo war a jox pour lan mu la koy jox est yow li la sant ban war laa jox lii yaa ngi ci constitution bi dafa wax loolu nga xam say devoir nekk ci soo paree nga mun a doog a kaas say nga xam say droit nekk ci boo paree nga doog a mun a kaas say devoir constitution bi loolu daf koo bind ñetteel bi bu ngeen voté wul wii encore une fois di ngeen mu changé ko ah def ko cinq ans ci douze ans yi balaa douze ans yi mat mu changé waat ko def ko sept ans loolu mooy lan un asfaw de pouvoir c'est ça qui a créé le problème au loolu moo tax nit ñi am ay problème mais bu ko bàyyi woon sept ans xëy na du am problème wala mu bàyyi ko cinq ans xëy na am problème mais moo fi nekk di changer di yokk di wàññi di yokk di wàññi ba ñu egsi c'est ça le problème la vérité c'est ça oto dañuy am problème léegi nag Macky bi mu ñëwee xam ne sept ans yi ëpp na mu promettre mu ni moom bu ñu ko falee dina ko def cinq ans ñu fal ko mais bu ñu koy fal ko fay fal bi ko falee sept ans il a il a juré devant le conseil constitutionnel comment léegi se fait-il que mu waat devant le conseil constitutionnel ni daa respecté sama mandat respecté constitution bi mu dem waat bu ñu ko wàññi conseil constitutionnel wax ne nekk mu bañ ko respecté loolu mënul nekk quand même soyons sérieux nit ki mën a nekk nit baa nga nekk mbaam quand yow fàll la sept ans nga ñëw waat si ay nit ñu toog nga waat ne leen dinaa respecté sama mandat dinaa respecté constitution nga dem ba jamono ngay léegi doo bëgg changé wàññi sama mandat nga dem si constitution bi la noonu la mënut a ko nga bañ ko respecté mënul nekk ça c'est quand même noonu lañ ko wax mënul nekk mënul nekk mënul nekk ñi nga xam ne ñoo bëggoon nag pamti pamtee nguur euh, fexe ba 2019 am élection commence seen campagne bu ñu amutale position possibilité boobu dem euh, élection en 2017 si ñuy na jaxasal affaire yi la mais lii comme ni ko euh, doyen doo doo doo ñaaw waxee mënu ko daal assemblée ko voté pour point yi mais gars yi voulaient pas point bala rek moo leen intéressé woon comme amatul léegi rek ñun léegi dañu ci xëpp suuf léegi ah des gens que nous connaissons très bien quoi ñoo nekkoon ak ñoom fii donc nit ñi ñun dañu leen di demander yéen ñun pour le front là dañu leen demander yéen ngeen voté comme président exemple loolu la bëgg nañu wote yi de toute façon bu ñu wotee wii wala ñuy wotee non bu si gënte kay moom il a rien à perdre dana nekk fi président ba 2002 askan bi mooy perte bu dee ba 2019 bu demaatee élection bu buñ ko élection te mu dafa am ko yenn sept surtout loolu la rek